làmb la bu ñu tëjee barrière yi incha allah mag ama fay nekk bu soobee na am na ñu bëri parcelle am dal seen kaw yàlla moo ko dogal waaye ma ne ñaata ñaata <laughs> ay jël la sama ma bëre dafa nekk ci suma yoon ma war a bëre jël ko waaye incha allah loolu it mu defoon ba ba ba ba ba waa Parcelles reer bi incha allah naa ko delloo ba jour ba waa Pikine ñenn ci waa Pikine reer parce que Pikine am naa fa ay ay supporters waaw waaw gis nga moom laa la wax moo tax rek ne ama dugg na waa parcelle moom ma tere reer ñaata yoon ma leen man ñaata yoon laa tere reer ñenn ci waa Pikine parce que su ma bëree Pikine ba pare da ngay foog ne ko loolu la dëkk am nañ supporter fépp vraiment di ñaan daal incha allah suñu gis maa moom yàlla ci ñenn waa Pikine bu ñu reer incha <laughs>